parti bii di APR te njiitu réew mi Macky Sall jiite ko ñoom jamono ji ñi ngi ci guddi yu bët setagul bu fekkente ni nit ñi ñi ngi wër njiitu réew mi di ko jiiñ ay complot ak di ko naan daal euh, dafa bëgg a yuutu lii di ñetteelu mandaawam ñi nga xamante ni ñoo ko wër waroon ko jàppale ñoom naka dafa mel ni defuñu lu mel waaye nag yamuñu ci di wër di def li nga xamante ni moo di ay tuuxi duuna kenn ci ñoom di ab responsable bu dëkkee fële ci diwaanu Thiès di wuyoo ci turu Ousseynou Diouf moom ji ñi nga xamante ni ñoo di waa Vox teg nañ ko loxo bu ñu sukkandikoo nag ci journal bii di L'As Quotidien responsable APR boobu ci diwaanu Thiès li tax ñu teg ko loxo nag du lenn lu dul daal mbiru njuñ njaaj yoo xamante ne def na ko ci ab terrain boo xamante ni mu ngi nekkee fële ci quartier bu ñu naan Ngent nekk ci diwaanu Thiès.